soxna faatimatu mbakke soxna faatimatu mbàkke mi ngi feeñ jamono ci atum 1892 ci dëkk bu seeli bii nag di Touba di doomu soxna penda buya ba ak ku baax ki sëriñ Touba xaadim rasuul moom soxna faatimatu mbàkke amul kenn nag kum bokkal soxna penda buya ba ak sëriñ Touba seexul xaadim waaye am na ñeneen nag ñum bokkal waajur wu jigéen te bokkuñu nag waajur wu góor ñu man cee ràññee sëriñ cheikh penda mbàkke ibnu soxna penda buya ba ibnu mamoor jaara magi màkk soxna saynabu mbàkke bintu soxna penda buya ba bintu Mamor Jaara magi mag soxna Màggat Mbàkke bintu soxna Penda Buya Ba bintu Mamor Jaara magi mag soxna Maam Asta Waalo Mbàkke bintu soxna Penda Buya Ba bintu Mamor Jaara magi mag soxna Faatimatu Mbàkke ñeent ñii nag la bokkal waajur wu jigéen te bokkuñu waajur wu góor laataa ñuy wéy sax ci mbirum soxna Faatimatu Mbàkke ñu wax leen njaboot gii mu bokkal waajur wu jigéen te bokkuñu waajur wu góor nag ñoom ñooy ñan sëriñ Seexu Mbàkke Penda Buya Ba di doomu soxna Penda Buya Ba ak Mamor Jaara magi mag moo meññ nag sëriñ Seexu naa Mbàkke ñaareelu doomu soxna Penda Buya Ba ak Maam Moor Jaara magi mag di soxna màggat Mbàkke bi mu matee dem kër sëriñ ma Yaasin Ummi Jëng nag lañ ko jébbaloon ba tax na sëriñ ma Yaasin Ummi Jëng am nag njaboot itam ci soxna màggat Mbàkke mi ñu mën cee ràññee sëriñ Moustapha Jëng mi nekkoon xalifa sëriñ ma Yaasin Ummi Jëng ak soxna Loota Jëng bintu sëriñ ma Yaasin Ummi Jëng moom soxna màggat Mbàkke moom soxna Penda Buya Ba ak Maam Moor Jaara magi mag ginnaaw bu fi sëriñ ma Yaasin Ummi Jëng nag bàyyi ko lañ ko jox sëriñ Moor Sey Lampum Njàmbur bokkitim nag ci jàmbaar yi toppoon ku baax ki sëriñ Tuubaa Xaadim Rasuul ba tax na sëriñ Mor Sey lampum njàmbur itam nag am na ci njaboota muy sëriñ Aydara Sey ibnu sëriñ Mor Sey lampum njàmbur ibnu soxna màggat Mbàkke ak soxna bintu Sey bintu soxna màggat Mbàkke bintu sëriñ Mor Sey lampum njàmbur ñetteelu doomu soxna pend buya ba ak maam Mor Jaara magi mag mooy soxna Seynabu Mbàkke bi mu matee dem kër nag nga yéen ko yóbbu woon mu am fa wax soxna soxna maam asta waalo mbàkke soxna maam asta waalo mbàkke mii nag bàyyiwu fi ak njaboot ndax fan woo guddul njaboot gii nag la maam moor jaara am ci soxna penda buya ba njaboot gi itim nag la soxna faati mbàkke bintu sëriñ tubaa seexul xadiim bokkal waajur wu jigéen te bokkuñu waajur wu góor moom soxna faati mbàkke bintu sëriñ tubaa seexul xadiim mu bokk itim nag ci doomu sëriñ tubaa seexul xadiim yi feeña jamono ci dëkk bu seeli bii nag di tuubaa ba tax na nag bi sëriñ tubaa seexul xadiim nag di dem ci géej gi soxna faatimatu mbàkke bintu sëriñ tubaa seexul sëriñ Touba Seexul Xaddiim nag di dem ci géej gi mi ngi ko bàyyi nag ci loxoy maam Mor Jaara di magam ndax booba itim nag waajuramu jigéen wi nag di soxna Penda Buya Ba mi ngi ci loxoy maam Mor Jaara bi mu matee dal alxuraanul karim waajuram maam Mor Jaara moo ko dalal alxuraanul karim ci loxoy maam Mor nag la jànge alxuraanul karim itim nag ba mokkal ko ci loxoy maam Mor Jaara itim nag la wéy nekk ba ni sëriñ Touba Seexul Xaddiim nag jógee ci géej gi ci atum 1902 moom soxna Fatimatu Mbàkke bintu sëriñ Touba Seexul Xaddiim miiti bokk itim nag ci njaboot gi sëriñ Touba Seexul tudde faat yi mu wéy nag nekk nag ci loxoy maam moor jaare di waajuróom ak loxoy waajuróom nag di soxna pend bu ya ba ba nim matee dem kër sëriñ tuubaa seexul xaddiim moo ko jël nag jébbal ko ku ñuy wax sëriñ omar mbàkke nag bu gelongal ngir mu dëkkoo nag soxna matu mbàkke ba tax na sëriñ omar mbàkke moom sëriñ mbàkke kajoor am na ci itim nag ak njaboota ci biir njaboot gi sëriñ omar mbàkke gelongal nag am ak soxna matu mbàkke ñu mën cee ràññeeku ñuy wax sëriñ moodu mbàkke moom sëriñ omar mbàkke moom soxna faatimatu mbàkke bintu sëriñ tuubaa xaadim rasuul ñaareelu nag bu soxna matu mbàkke am ak sëriñ omar mbàkke gelongal mooy sëriñ cheikh mbàkke ibnu soxna faatimatu mbàkke ibnu sëriñ omar mbàkke gelongal ñetteelu bant nag bu soxna faatimatu mbàkke am ak sëriñ omar mbàkke gelongal mooy sëriñ abdou karim mbàkke ibnu soxna faatimatu mbàkke ak sëriñ omar mbàkke gelongal ñeenteelu bantu soxna faatimatu mbàkke ak sëriñ omar mbàkke gelongal mooy soxna ami cheikh mbàkke bintu soxna faatimatu mbàkke bintu sëriñ touba seexul xadim ak sëriñ omar mbàkke gelongal ñeenti bant yi la soxna Fatimatu Mbàkke am ci loxoy sëriñ Omar Mbàkke Gelongal ci dëkk bu sell bi itam nag di Touba la ko sëriñ Omar Mbàkke Gelongal nag féetale woon ci dëkk bu sell bi itam nag di Touba fi la nekk itam nag ba nim génnee àdduna ci atum 1930 njaboot gi soxna Fatimatu Mbàkke am ak sëriñ Omar Mbàkke Gelongal ngir ñu wax leen nag ñoom ñooy ñan sëriñ Moodu Mbàkke Gelongal sëriñ Amdi Mbàkke nag mooy ab xalifaam jamono ji sëriñ Cheikh Mbàkke moom soxna Faati Mbàkke moom sëriñ Touba Xaadim Rasuul bawu fi nag ak njaboot sëriñ Abdou Fatimatu Mbàkke ak sëriñ Omar Mbàkke Gelongal ab xalifa mooy sëriñ Abo Mbàkke Gelongal soxna Ami Cheikh Mbàkke moom soxna Fatimatu Mbàkke bi mu matee dem kër Mbàkke Kajoor nag lañ ko yóbbu joxoon ko fa ku ñuy wax sëriñ Omar Mbàkke sëriñ Omar Mbàkke mi nag doomu sëriñ Amar Faal Mbàkke la moom sëriñ Mbàkke Kajoor ba tax na soxna Ami Cheikh Mbàkke am na ak njaboot nag ak sëriñ Omar Mbàkke moom sëriñ Amar Faal Mbàkke muy ñaari bant nag yu jigéen soxna Mariamu Mbàkke ak soxna Muslimatu Mbàkke njaboot Mbacke gi mu am ak sëriñ Omar Mbacke moom sëriñ Mbacke Kajoor mu wéy nag des nag ci loxo sëriñ Omar Mbacke sëriñ Omar Mbacke itam nag ci dëkk bu sell bii nag di Touba itam nag la ko dëloon ci fii mu dëkkoon nag ci mooy fi dend ak kër sëriñ Hamsatu Jaxate ci kër googu itam nag la soxna Fatimatu Mbacke génnee àdduna ci atum 1930 di yar ak di jàngale comme itam nag ni ko yoonu murid nag baaxoo itam nag di defee ba tax na doomu sëriñ Touba Seexul Xadim bii ñuy wax sëriñ Touba Seex Saalihu Mbacke seede na itam nag ci magam jooju doon na xamal njabootu soxna Fatimatu Mbacke gi xamal ne ca Tuubaa ju njëkk ja bi ñu nekkee nag ci seen loxo yi nijaay sëriñ Xamsatu Jaxate soxna Faatimatu Mbàkke booba itam nag mu ngi ci dëkk bu seeli bii nag di Tuubaa su añ masaa jot këram googu nag la ñuy añ see farlu goo xam ne nii itam nag soxna Faatimatu Mbàkke nag farlu woon na ci ñoom ñooñu tax na itam nag doomam nag di sëriñ Moodu Mbàkke lépp loo xam ne nii soxna Faatimatu Mbàkke nag daana ko def ci moom sëriñ Tuubaa Seex Saaliyu Mbàkke nag mi ngi doon xamal nag njabootu soxna Faatimatu Mbàkke di leen xamal ne itam nag daawu ko wuutaleeg ñoom ba tax na itam nag lépp lu sëriñ Moodu Mbàkke daa am ñoom daana nañ ko am doomu sëriñ Touba Seexul Xadim nag yi nekkoon Touba nag di fi jàng te jamono jooju nag soxna Fatimatu Mbàkke nag nekkoon fi mooy sëriñ Touba Seex Abdul Ahad Mbàkke sëriñ Touba Seex Soye bu Mbàkke sëriñ Touba Seex Saalihu Mbàkke ak sëriñ Touba Seex Abdou Samat Mbàkke bisub keroog sax sëriñ Touba Seex Saalihu Mbàkke nag mi ngi xamal njabootu soxna Fatimatu Mbàkke di leen wax ne magam jooju daal di soxna Fatimatu Mbàkke yéena ju am solo wala yéena ju kawe kawe daal la am ci moom ndax kan ñoom biñ fi jàng nag ci dëkk bu sell bi nag di Touba Fatimatu Mbàkke bii ñuy wax sëriñ Moodu Mbàkke Gelongal lépp loo xam ne nii soxna Fatimatu Mbàkke nag daana ko def ci ñoom laataa mu koy def ci moom ci ñoom ñooñu nag di doomi sëriñ Tuubaa Seexul Xadiim nag la koy njëkkee nag ba noppi muy xamal njaboot gi itam nag ba tey di leen wax ne soxna Fatimatu Mbàkke na mag nag ci ñoom ndax waajur lañ ko jàppe woon loolu moo waral nag bisub kero nag bi ko njabootu soxna Fatimatu Mbàkke nag ñëwee doon tàggu nag ci bis bu ñuy wutal soxna matu Mbàkke mu doon leen xamal ne bis boobu daal ñu jagleel soxna Fatimatu Mbàkke nañ ci góor góorlu moom de bu fekkoon ne am na jot gi lépp lu ca war moom moo koy def moo xam ca taxawu ba ak woote nit ñi waaye nag nañ xam ne lépp lu luñ ca def moom lañ ko defal ndax soxna faati matu Mbàkke daal kenn la woon daal ci ñoom cofeel googu sëriñ Tuubaa Seex Saaliwu Mbàkke nag amoon ci magam jooju nag di soxna faati Faatimatu Mbàkke mbooleem rakkam yépp itim nag cofeel gu mel noonu itim rek lañu amoon nag ci seen mag ji nag di soxna faati matu Mbàkke ay magi boppam itim cofeel gu mel noonu itim rek lañ amoon ci moom magam Cheikh Mamadul Moustapha Mbàkke tudde na ko doom muy soxna Faatimatu Mbàkke mi bokk ak sëriñ dan xari wu jigéen soxna Fatimatu Mbàkke moom soxna xariloo moom cheikh Mamadul Moustapha Mbàkke soxna Fatimatu Mbàkke mii nag la ko cheikh Mamadul Moustapha Mbàkke tuddee cheikh Mouhamadul Lamine Baara Mbàkke ibnu Sëriñ Tuubaa Xaadim Rasuul tudde na soxna Fatimatu Mbàkke moomu nag doom ba tax na soxna Fatimatu Mbàkke moom cheikh Mamadul Lamine Baara Mbàkke bi mu génnee àdduna sax yàggul ndax atum 2012 fi la ko fekk seexub Sëriñ Tuubaa Xaadim Rasuul bii ñuy wooye cheikh Issa Diène tudde na soxna Fatimatu Mbàkke bintu Sëriñ Tuubaa Xaadim Rasuul mii doom cheikh Issa Diène Sëriñ Tuubaa seexul xadim moo ko woolu woon doon ko xamal ne damaa bëgg nag nga booloog soxna matu mbakke mii mu def la càmmiñ nga def ko ab jigéen lool moo waraloon nag seex Issa Diène tudde woon na soxna Fatimatu Mbàkke mii doom wala tudde na soxna Fatimatu Mbàkke mii doom ndax soxna Faati jenn mi ngi fi ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen nag ñu ko tudde doom njaboot jëm nekkoon itam nag di njabootuk sëriñ mbakke Kajoor ñu ci bare bare bari itam nag tudde nañ doomu sëriñ tubaa seexul xadim bi nag doom ndax soxna Fatimatu na te moom soxna Fatimatu Mbàkke bintu am na ci ay turandoo waa kër Mammoor Jaara rawatina itam nag ñam fa bokkal waajur wu jigéen te bokkuñu waajur wu góor ñu ci baree baree bari itam nag ci njaboot googu rawatina sëriñ Cheikh Penda tudde na nag magam ji nag di soxna Fatimatu Mbàkke doom yar jàng jàngale nag ci la nekk di ndono loo xam ne nii nag moom la leen seen waajur wa xamal ci loolu itam nag la sax ci ginnaaw itam nag kiñ ko jox nag di sëriñ Omar Mbàkke Gelongal dem féete itam ba nim mi ngi magam nag cheikh mamadul moustapha mbàkke ci atum weer wa nag moo di weeru tam xarit wi ci atum 1349 ci gàddaay gi ca weer wa nag di weeru tam xarit ci atum 1349 nag ci gàddaay gi weeru tubaab wa moo dëppoo woon nag ci mois de juin ci atum 1930 mois de juin ci atum 1930 ci kër gii mu féete woon nag ci Touba Daarul Minam di kër Serigne Omar Mbàkke gelongal ci xilaaf ak magam nag cheikh mamadul moustapha mbàkke ñu jébbal waaye ma kunta ci fanweeri at juróom-ñett itam nag la dem moom doomu seexul xadim bi ay xalifaam nag nii la tëddee sëriñ moodu mbàkke gelongal moo toog ab xalifaam nag ci atum 1930 ba ci atum 1999 ci atum 1999 nag la sëtam bii nag di sëriñ am di mbakke moom sëriñ moodu mbàkke gelongal toog nag toogaayu soxna faatimatu mbàkke di sàmm itam nag ndonal maamam loolu nag di soxna matu mbàkke ànd koog nag mboolem ñum séqal soxna matu mbakke soxna faatimatu mbàkke bindu sëriñ tubaa seexul Seexul Xadim nag am na bis nag buñ koy fàttaliku ci luñ tudde ak màggal ci quartier bii nag di Touba Daaru Minam nag lay amee ci kër gi nga xam ne nii itam nag fa la génnee àdduna sëtam bii nag di sëriñ Amdi Mbàkke moom sëriñ Moodu Mbàkke moom sëriñ Omar Mbàkke moom sëriñ Mbàkke Kajoor mooy ki koy amal nag waaye màggal gi itam nag amul bis fixe nag ci at mi saa su nag dañuy waxtaan rek ba juboo ngir jàpp nag bis bu ñuy fàttaliku nag doomu Seexul Xadim boobu nag di soxna Fatimatu Mbàkke woon Fatimatu yàlla nañu ko suñ borom fayal nag te yokk ay leeram nag te taas ñu ci barkeem lii di jafe-jafe réew mi tim nag yàlla na ko suñ boroom saafara yi dara jay faati matu amiin jey Fatim